Dakar Animaux Tay nak dañu am ben émission bu spéciale bu ñu nar def fi nga xamanteni ni moo di Thiès euh, muy euh, centre bi nga xamanteni moy le Lion Noir Lion Noir nak bari na loo leen loo leen koy gis ci ci ci à travers les réseaux sociaux mais tay dañu am chance ñu fekk fi ki nga xam ne moo Diagne et madame aussi madame Diagne ñu fas yéene seq ñoom waxtaan bu am am solo jëm ci wàllum euh, élevage li nga xam ne moo di élevage canin Diagne ñu ngi lay nuyu baax di la gërëm ci sa temps bi nga xam ne jël nañ ko tey ñu ngi leen di ziar bu baax di leen remercier aussi ci déplacement bi ngeen def ci ñëw bi def ngeen lu am solo parce que fii ñu bare bëri dañuy intéressé wu ci les chiens de race mais bon par contre duñu xam te émission yu mel nii wala jotaay yu mel nii dana leen permettre aussi ñu permettre ñu gën a mën a expliquer nit ñi aussi pour mën leen a wax mhm. aussi niñ war a toppatoowee seen bu ñu amee un bon chien à la maison niñ ko war a toppatoowee mettre ko dans de bonnes conditions ñu ngi leen di jaajëfal d' accord euh, Diagne ce que mën nga ñu présenter fii ñu nekk fan la. fii mooy Kër ma Madaro Kër daaro moo Kër Mor Ndiaye euh, ñoo dend ci route national bi la booy jëm xombal mhm. juste mooy village bi la tudd Kër Madaro. Mhm. voilà. d' mhm. centre bi fi nekk ni kër gi. bon centre bi kër gi ñu ko tudd le lion le lion noir. le lion noir nag bon du du dara lu du dara lu spécial. parce que sama m'a décidé euh, créer élevage bi sama ñoo parce que c'est un nom vraiment ça mhm. bon allez c'est bon le lion noir. d'accord voilà mu à chaque fois bu bu rek lu <laughs> parce que vous ko <laughs> <laughs> euh, euh, que vous ci élevage Sénégal luñ est-ce que mën expliquer moy lan seen voilà élevage élevage canin au Sénégal comme par exemple melne centre bu melni nga bon on a une quarantaine de chiens mhm. euh, tantôt mâle femelle mhm. parce que euh, élevage canin dafa yombul mhm. euh, bokk wute naag élevage yu bari bari élevage yu xar élevage yu parce que xam nga les chiens dañu am spécial am spécial dafa temps il aussi surtout surtout toujours nga un grand passionné des siens pour do ci voilà d'accord d'accord fi fi fi liguey bi Je keur c'est-à-dire que gis na fi ay box box bu nek lan ak lan mo fa ci ci ci voilà c'est ça euh, six box différents parce que am différents races bon y le canicorso d'origine italien la y le boer c'est sud-africain. Mhm. Rottweiler. Mhm. si c'est allemand. Mhm. am nañ dog allemand c'est allemand aussi berger allemand aussi am na. malinois am na. voilà yooyu mooy différents races yi nga xam ne nii moom la ñu am fii ci ci centre bi. pourquoi ngeen ngeen choisir race yooyu noonu. voilà race yooyu lu tax ñu choisir ko. parce que dañoo xam ne fii xam nga Sénégal rek insécu insécurité bi dafa bari. nit ñu baree bari bon nit ñi léegi ñu commencé dëkk ci ci ci ci alentour ville yi donc voilà la sécurité est manquée. Nous mm. te ñu de gens dañuy sécuriser leur cœur. donc nous tax ñu choisir race parce que quand nous faisons une sélection. Mm-hmm. nous ceeg ay experts yi nga xam aussi ñoo ñu conseillé ci race yi nga pour faire euh, un bon gardiennage. Mm-hmm donc ci lañ décidé def sélection indi race yooyu. d' accord d' accord tey euh, euh, c' vrai que wax ko ko léegi euh, waxtan ngeen ak ay ak ay ak ay professionnels du milieu. bañ ne leen indi leen race bi ak race bi ak race bi mu melni quand on parle de indi leen rek. moy mhm. juddoo wuñ Sénégal fii nii. naka ngeen def pour mën ko pour mën ko importer ak pour ban procédure lay jël effectivement bon euh, race c'est parce que les yep dañ importés dañ leen euh, importé yi Europe lañ jugé yi Afrique du Sud mhm. lañ mais bon ci côté importation bi wul parce que bon soxlawul yenn autorisation parce que bon tu sais fi Sénégal amul benn législation pour wax ci les chiens de race mhm. donc pratiquement bokoy importer importé euh, les documents du vétérinaire. Mhm. Euh, avec les vaccins surtout les vaccins. Nous avons les vaccins à jour am aussi les autorisations du vétérinaire pour dire que le, chien est en bonne santé une bonne fièvre. donc avec ça euh, nous avons ko ci mhm. Euh, tu payes le transport et puis bon voilà mu mm-hmm. ñëw sans problème. Mm-hmm. ku nga xam ne Sénégal fii euh, yor fii yor fi xaj yombul. Mm-hmm. parce que majeure partie ici si ci famille yi ay appartement yu ndaw la ñuy am. est ce que yéen nga bàyyi xel loolu noonu ba nit bu dikkee pour am peut être que xaj di ngeen xam ban xaj moo moo moo adéquat ak dëkkuwaayam. effectivement parce que ñun loolu dañ ci veiller bu baax a baax parce que euh, xam nga fi Sénégal nit ñi dañoo commencé bëgg euh, commencé di di bëgg les chiens de race hmm. mais bon duñ ko xam dañ ko bëgg dañ bëgg lu sécuriser seen kër hmm. mais duñ xam lañ lañ lan lañ ban race lañ war a jël wala ban race moo baax ci ñoom hmm. donc même ñun bu fekkee ni sax jëndoo ci ñun wala jaayuñu la même nit ñu bare bare dañuy woo ñun dañ leen di informer pour les expliquer les race yi nga xam ne ni parce que xam nga aussi euh, c'est des chiens de race mais ça ne veut pas dire que seulement c'est des chiens de race Maintenant, nañ des chiens de des chiens de compagnons. donc euh, loolu aussi ça dépend ci li qui est le ki bëgg bu ko donc ci lañ ko que indiqué race bi race bi mo gëna bax hmm. wala race bi mo gën pour sa endroit ak yooyu bon c'est aussi mën ci xuus. parce que race comme par exemple ñu bari dañuy le malinois. pourquoi le malinois. parce que malinois xaj la boo xam dañ koy gis lu bari euh, yor def pour affaire drogue explosif dañ koy souvent ci aéroport mais bon euh, ça veut pas dire que euh, ku am malinois parce que malinois c'est une race bi nga dafa am lu spécial lu mu soxla. Hmm. espace bañ ko tuddee nañ ko en quelque part un chien de travail. Mhm. donc dafa soxla di génn dafa soxla di def sport dafa soxla def ay mouvement donc yow bu fekkee ne da nga bëgg malinois te sa temps permettre la loolu. Mhm. donc dañ lay indiquer nga wut yeneen race yi nga xam ne nii bon danañ la mën a defal un bon gardiennage et puis ils sont plus calmes plus tranquilles. d'accord sinon mën nañu wax ci Canicorso Corso mhm. tantôt que ci Boer Bull. ñaari race la yoo xam ne bon cani Corso moo Italie Boer Bull bi mooy d'origine Afrique du Sud mais ñaari race yooyu pratiquement. Euh, dañoo xaw a caractère. Mmh. même seen physiquement aussi une morphologie. physiquement physiquement presque c'est la même chose am na ci ñoo xam ne pratiquement sax boo xamul les races donc donc on a identifier ban moy ban comme par exemple biñu yor fi c' un canicorso. d' voilà mais bon yi la ñuy gën conseil lu bare bare bare parce que c'est les races yi nga xam ne nii ñoom boo leen gisee ak seen jëm mmh. déjà li rek déjà man na def gardien même bu dul mboo sax nii rek boo ko yoree sa kër mën na def gardiennage. voilà te puis c'est des bons gardiens. Mhm. bon li gën a tax na ñu koy recommander. Mhm. c'est des chiens yi xam ni ils sont bëgg nañ xale bëgg nañ jouer.

D'accord. accord voilà. d' gis nañ gis nañ ci box bi nga xam ne lañ jàkkaarul ay tuyaux yu ndaw ndaw ndaw ndaw mhm. donc euh, élevage bi mom depuis depuis euh, xaj bi mu mi base ba mi ba ba kéro muy mag mhm. lepp ngeen di toppatoo est ce que mën nga ma expliquer processus bobu noonu waaw effectivement parce que loolu laa wax ci difficulté yi nekk ci ci yor élevage de chien parce que il faut ngay contrôler il faut ngay noter mhm. euh, sayi sayi bu jotee dañ leen di sélectionner yan femelle ñoo war a sayi ak ban mâle la war a sayi le accouplement effectivement donc premier jour accouplement bi yoyep koy mhm. parce que bon ñom une durée de gestation de deux mois. donc voilà à partir de deux mois buñ amé 45 50 jours. Mhm. les lañ leen indi ci bi bi fi, nañ maternité maternité zone bi fi lañuy nek et puis comme ñun aussi on habite tout près. ñi ngi dëkk à côté ak ñom donc dinañ dañ leen mëna suivre de temps en temps. Euh, ñuy dem di leen xol di xol ci yan état lañ nek di xol lan lan laaj lañ la soxla. bu moment bi nga xamé ni ci la commencer mettre bas. alors à ce moment des fois sax. Euh, on dort on dort ensemble avec eux pour les surveiller pour ñuy aussi naissance yi def maître après ñu reposer bon gérer mu donc xam temps temps parce que pratiquement tous les jours que je fais à partir de 6h30 la donc vous joggé nek ci nous commencé à faire ses besoins, bon, le nettoyage et tout, nous avons fait les Donc nous aussi fait détente largement parce que c'est très important. Les le chien a toujours fait des bugs, des détente, des stressés. beaucoup de fait de Donc le temps de de 6h30 jusqu'à presque dans les 11h, 11h30, nous parlons de flip, de la voir de l'ancienne case, mmh. une reposer. Tout le temps aussi, Birkazi, mmh. euh, de toujours de parce que fait des la haïtien la yo xamné ni amna ci yo xamné xéna peut-être dañuy am difficulté pour adapter wu fi ci climat bi. donc dañ leen defal ndox ñu ndox de l'eau frais. mom mhm. lañuy jël avec ça ñu bàyyi leen ñu nek fofu ba reposer ba 16 h bu 16 h aussi ñun entre temps boobu ci lañuy jël suñu heure de pause ci lañuy jël pause. léegi à partir de 16 h ci lañuy jogat commencer ak ñom même routinaire bi. bon génné leen ñuy def euh, ñuy def seen i besoins et puis def seen détente ci ngone gi jouer. def tuuti sport. ba ay 19 heures après ñu delloowaat leen seen case. d'accord côté côté nettoiement bi gis naa ne seen seen seen case yi dañoo set. Mhm. Euh, naka ngeen def parce que man sama kër am naa fa benn benn xaj. Ah. mais dama am problème j'ai tous les problèmes du monde pour que mu set fu neex mu saw fu neex mu puub man problème boobu moo tax <laughs> ma see mujjee doyal sëkk mais ngeen def ba nettoiement parce que xool naa mais pour nga gis seen kakaay yi quelque que loolu aussi c'est très important loolu tax aussi wax ne dafa bëgg dafa bëgg un chien de naan ko boo amee temps dangay ngay déplacer wu ñëw hmm. parce que boo ñëwee ci lañ lay mën a expliquer pourquoi parce que ñoom à bas âge dañ leen di commencer jangal ñuy être propre waaw ñuy être propre c'est-à-dire loolu bi ñuy doon xale lañ leen koy jangal mhm. donc euh, euh, motax ñuy wax ne toujours day am moment yo xam dang koy génne ñom souvent ils ont tendance à faire leurs besoins euh ñu lekkee ba paré 5 minutes 10 minutes après mhm. donc heure yoy ngay xam calculer ko boo ko joxee mu lekk ba pare nga génne ko bu fekkee ni amoo benn cour wala jardin sa kër nga génne ko dafa moom benn promenade bu ndaw mu def ay besoin yëpp ba pare doxantu tuuti ñëwaat dugg léegi nag noonu nga koy toppoo di ko def tous les jours tous les jours tous les jours ba nga xam ne ni moom day mujj day adapté wu ci loolu des fois même bu fekkee nii sax dafa am les besoins te fekk na boobu mi ngi ci biir case bi day xaar parce que day xam ne heure am léegi mu jot pour nga léegi nga ñëw génne ko boo ko génnee mu def ay besoin ci biir mu def ay besoin ci biti donc looloo tax ci côté nettoyage bi du metti lool lool suñ côté parce que ñoom ñëpp jàngal nañ leen ñuy ñuy set ba nga xam ne nii pratiquement biir niche bi des fois du salté lool par contre tous les jours que je fais il faut dañ koy defal nettoyage dañuy defal nettoyage niche bi désinfecté ko ak eau de javel euh, changer leen ndox bi en même temps defal len aussi sen sen lek ok côté côté côté santé bi ko ñu gis ne bon xaj de la plupart boo rombee si mbedd mi le xaj yi ñu woowee les bâtards da ngay gis dañuy am ay verre dañuy am ay gomme dañuy am ay ay boutons et tout ça euh, naka ngeen di doxale si côté côté côté santé bi avec une quarantaine de chiens du du du yomb normalement. waaw waaw yombul lool surtout côté santé bi parce que fii bëriwul ay vétérinaires yo xam ne euh, ils sont qualifiés. ci domaine les chiens de race. fi sun vétérinaire majeure partie bi amna fi nak ñu xarañ machallah ci chiens yi. mais majeure partie bi yépp ci nag yi xar yi ginaar yi ci lañ spécialisé wu. donc ñun liñ def mooy dañoo am euh, am collaboration ak un grand vétérinaire. bu nekk à Dakar. juste à côté de qui? place de l'indépendance. donc euh, voilà moom la ñuy liggéeyal. mooy ñëw fii di def suivi bi di de temps en temps mu ñëw def suivi bi xool ba xam ce qu'il faut faire et tout des fois aussi bu ñu amee yu ci bare bare nag bon comme yàgg nañ ci ñun ñoo koy defal suñu bopp bu fekkee ni ay petit soins yeeg yooyu mhm. mais bu fekkee ni lu compliqué la dañuy dem à Dakar ci veto bi bu ko defee mu xool ko mhm. lu mu laaj rek mu def ko parce que ñun pour ñun leur leur leur santé moom. Mhm. c' très important pour nous dañoo war a nekk dañoo war toujours en bonne santé. Mhm. bon ci côté bi nga xam ne nii pour sa xaj di propre ci côté di banyam a am ay verre di bañ am ay yooyu yëpp aussi boo demee ci vétérinaire yi boo renseigné woo. Mhm. danañ la teg ci yoon yoo xam ne boo ko defee tu vas avoir vraiment un chien propre boo ñëwee fii ñun aussi danañ la danañ la conseil aussi ci kii boobu. parce que mhm. am na ci ay ay produits vétérinaires lu demee ne bon le NexGard. Mhm. lu tudd kooku par exemple boo ko dee jox sa chien de temps en temps. boo ko joxee benn comprimé mën na dem dans les 3 mois 4, 4 mois des fois plus. Mhm. du am verre du am tig du am dara. donc ñun loolu déjà malgré que nag c'est que loolu ci nekk rek mooy c'est des c'est des c'est des des c'est des désinfectants yoo xam ne mhm. ils sont chers. mais bon ça vaut le coup bu mhm. fekkee ni da ngaa bëgg sa chien toujours di nekk. di propre d'accord gis gis nañ souvent ci côté comportement bi dañuy gis ay ay ay gars yoo xam ne dañ la bon sama xaj bi du mbow sama xaj bi agressiful moo tax dama koy tëj des fois gars yi dañ koy toute la journée ba goudi ñu door ko génnee lolu lolu ban xam-xam nga ci am ci côté bobu non. est-ce que lolu c'est c'est avéré que ne day tax xaj soxor wala xaj xaj mën a gaz gaz. non lolu c'est très dangereux. Ah ah. loolu c'est très dangereux xaj d'accord Warna, am niche bu muy nekk parce que du tout le temps ngay soxla muy génn di nekk ci ci kër gi parce que des fois yaa ngi am ay visite des fois yaa ngi am bon ñuy ñëw say xarit di la seet si te am na ci ñoo xam ne ni duñ ko ñeme. Mm. donc voilà te bu fekkee ni un chien de garde la déjà moom déjà détecté na xam na zone bi xam na famille bi xam na ñëpp ku gisul koo xam ne ni bokku ci famille bi xëy na peut-être mën na def benn réaction. Mm. donc voilà c'est normal am nice ça mm. veut pas dire que ne nag dañ koy tëj 24 heures sur 24 pour mu soxor wala mu mel ne

mu teg ci yoon bu ko defee do am ben ben problème. tandis que nag euh diko jël euh, diko diko diko fermer mom toujours voilà non yoy mom c'est dangereux parce que yoy li def toujours rek. Hmm. da koy perturber té da koy da koy stressé. te un chien stressé mom mom tôt ou tard moom il va devenir un chien dangereux. donc motax mom duñuy conseiller. Hmm. ñu nga koy tëj wala nga koy dor hmm. euh té lolu ñu ci bari bari bu diké fi ci li ngay commencer déjà si tu as un chien. moy familiariser ko mettre ko dans de bonnes conditions euh, di ànd ak du di jouer parce que un chien du du du du un truc bo xamné ne nii da nga naan kii rek pour mu garder ah. donc wara yor mu nek ak yow comme un de plus euh, ci famille bi. nek mom voilà un membre de la famille effectivement. bu ko defé léegi mom day dem ba xam lolu mhm. bu ko defé léegi day don un chien bi nga xamné ne day équilibré. te bu heure gardiennage bi jotee dañ la génn defal la gardiennage bi nga bëgg. te vraiment du am ben problème. d'accord gis na gis nañ sànq man jardin d'enfant laa koy woowee ci jardin <laughs> fii mooy maternité bi léegi jardin d'enfant yi booy fi ñu duggoon léegi gis nañ fa façon race bu nekk euh, naka ngeen def ba ñoom seen biir duñu du ñuy xeexante et tout ça parce que loolu yomb laa loo koy gis dañ ñaari xaj da ngay promener avec sa xaj sax mu gis mu song ko wala mu gis beneen xaj daw ko song mais jeu bi tout à l'heure ne danga nga boole ay ay xaj yu bëri ci benn ci benn cours na ko noo def ba familiariser noonu waaw lolo, moy surtout li may expliquer ci famille ci sen familiarisation. li may wax né c'est très important parce que d'accord yu nek foofu amna ci yo xamné dañu wara a am ay propriétaires amna ci yo xamné bon pour élevage bi la. mais bo gisee ñu len di def non ci âge biñ ñu toll parce que dañuy ci lañ c'est pas méttiwul. Mhm. parce que bu ñu nekkee pratiquement duñ am yenn agressivité yi donc ci moment bobu ngay commencer di len bolé ñuy nek ensemble en même temps yow aussi ngay nek ak ñom ci seen biir. ñu xamné aussi yow ya seen maître ñom ñep malgré qu'ils sont 10 ou 15 mais kenn ku nek day xam turum ben deuxièmement déraper du ñak parce que. c'est des c'est des siyo mhm. tout le temps des fois ñu xeex des fois ñu fo fo bu xawa metti mais ci lool nak ngay and ak ñom di len corriger di len kun na déborder nga woo ko ne ko non faut pas faire ça xam nga léegi arrête bu ko defee mu arrêté ñoom dañuy dem ba comprendre loolu. léegi nag nga leen koy defal de fur et dañuy dem ba ñoom seen bopp loolu dañ koy bëgg mi ngi mel ne rek fii au temps booy ni ñuy bëggee chaque jour kenn ku nekk génn sa kër ñu tasee ci benn endroit joué fo. non lay mujj don ci ñom léegi lool lu mu koy permettre nak day bu fekkee ni il est bien familiarisé ni mhm. boko jëlé pour yóbbu ko sa kër mhm. pratiquement yow do am ben problème mhm. pour vraiment pour gérer ko même bu fekkee ni sax amu expérience ci chien boko yoré sa kër ça sera facile pour nga gérer ko c'est seen alimentation bi fofu la kay fofu la kay xawa jéxalé jeexale euh, parce que ñu ngi jël sa temps bi té xamna depuis 6h du matin ba légui vraiment muy daw de gauche à droite euh, ñu koy <laughs> jégalu di ko remercier encore alimentation bi naka lay démé parce que euh, en les voyant ils sont bien nourris voilà alimentation quand même côté aussi c'est très important. Quand mhm. ci à part euh, santé bi. Mhm. alimentation c'est très important parce que pour euh, un chien équilibré. Mhm. physiquement et mentalement il faut Bon, alimentation bu baax. bon ñun am bari sax def ñun la def dañ dañ mais bon pour une quarantaine de chiens quand même c'est pas évident. donc euh, bi ñu ci biir ñu xol waxtaan ak suñu vétérinaire mu jox ñu ay conseils légui ci lañ tourné di leen jox les les croquettes. waaw croquettes yi il y' a beaucoup sur le marché y' a plusieurs marques. Mhm. mais nak tout le temps dañuy conseiller mhm. euh, le client muy jël des croquettes de bonne qualité. parce que lool dana la permettre ce chien di di grandi di grandi ci conditions yu bax mhm. te puis ci côté santé moom. Masha allah alimentation bi moom fait, mu def mais croquettes aussi ça ça coûte cher hein? ça coûte excessivement cher c'est ça le problème. <laughs> C'est ça le problème Ça coûte beaucoup voilà c'est ça parce que nous, fille, chaque chaque semaine pour te dire chaque semaine pour te dire on utilise de 10 à 15 sacs de croquettes Un sac de ça coûte 27 000 francs chaque semaine donc boo defee calcul bi kooku des fois des fois nit ñëw fi bëgg un chien nga ne ko non ñoom lii la ñuy lekk mu ne la saagu li muy jar nga ne ko vingt sept mille francs donc il te dit que mais sëñ bi yow yow lii saagu ceeb la <laughs> saagu ceeb moo gën a yomb la suñu riz parfumé bi voilà <laughs> moo gën a yomb tu vois quoi donc pour mettre leen ci conditions yi mais nag ça vaut le coup quoi parce que vraiment bu fekkee ni da ngaa bëgg un chien boo xam ne dafa nekk ci conditions yu baax ah. il faut comme nit rek il faut nga jox ko alimentation bu baax donc ñun aussi biñ demee demee bi ñu xoolee loolu ci lañ waxtaan ak suñu vétérinaire bi mu ñu conseillé sur les ñu jël des croquettes yoo xam ne nii moom lañ leen di jox. des yu baax. Mhm. bon moom lañ leen di jox voilà moo tax fi ñu toll nii tu vois que. ils sont bien portants. Euh, euh, tey euh, par exemple man mi nga xam ne bëgg naa bëgg naa benn benn xaj sama kër est-ce que naka laa mën a def ba mën a am ak ñu ba mën ko amee fii nii di à dire que est-ce que da di jaay est-ce que naka lay demee daal. voilà euh, fi ñun dañ leen di jaay bu ñu defee bu defee production dañ leen di jaay ñu ngi leen di jaay les chiots à partir de 2 à 3 mois. d'accord ci lañ leen di commencer joxe. Mhm. Euh, parce que loolu li muy permettre aussi. Mhm. muy mu màgg am benn minimum d'éducation. ñu ñu familiariser ko. Mhm. Euh, jéem koo jàngal aussi pour mu être propre. pour yooyu yëpp nga xam ne ni boo ñëwee di ko jël. dana xaw a facile dana xaw a facile ci yow. danañu permettre aussi ñu def les vaccins parce que les vaccins moom c'est très très important parce que fi dafa bari ay maladies yo xam ne mhm. bu len attaquer ci bas âge. Mhm. pratiquement moom pour sauver len du yomb. donc dañ len di garder ba am deux mois ou trois mois. Mhm. bu ko défé légui nga doog ñew ñëw jël si. vente bi bon ni muy démé une fois que ñun buñ défé ay portée, dañ koy publier ci sun site. d'accord site bi ban la. site bi euh, par Facebook. le lion noir le lion noir chien de race. d'accord voilà par Google bo tapé le lion noir chien de race dañ ñu gis. donc voilà buñ amé ay portée, euh, si on a naissance, voilà, si une a naissance, à partir de 3-4 euh, semaines, mm. les ont commencé à publier pour aussi les ils sont intéressés. Nous savons ont une naissance ou telle race. Mm. Si ils ont contacté son numéro de téléphone, son adresse. Si on a hmm. contacté, bon ñu expliquer leen. Hmm. wax leen comment ça se passe. pour leen numéro téléphone bi numéro téléphone bi pour que gars yi nga xamante ni xëy na <laughs> dañoo ni man sa bu trop trop ci ci ci internet bi ñu mën ko jël directement. numéro téléphone bi 78 146 20 20. bi ci dess 76 459 89 19. D'accord. voilà yoy boñ ci contacter rek bon on la wax fi fu naissance yi toll. Hmm.

un mois d'ici 45 jours commencer commencé am ay naissance donc voilà mais ci race yëpp la def ay naissance année bi di combien fi am ñaata ñaata porte ça dépend ça dépend ça varie quand même parce que des fois mën nañ entre 6 et 10 portées ci différentes parce qu'on a plusieurs mâles et plusieurs femelles mhm. voilà donc euh, mën nañ def de 6 à déporter, portées ci différents races donc mën naa d'accord d'accord gars ñu leen di jaajëfal bu baax bu leen faté abonné ci site bi ngeen bëss aussi cloche de notification bi tey jaañ euh, gouvernement bi parce que c'est vrai que euh, li activité la bo xamné Sénégal bëriwul lu luko luko gaay gars di di di di di di di def man euh, personnellement c'est la première fois ma gis organisation bu melni nii gis nit mu yor ben couple malinois couple berger allemand kërëm di ci xawa taxalé tout. touti mais def ko liguey tay li benen affaire la ki tay élèves yi nek ci zone bi yëpp waroon nañ de temps en temps ñëw di def ay visite di fi xol parce que xam-xam bu bare bare bare tay la la laa fi jànge gouvernement ban taxaway la waroon am comme seen genre yi nii. waaw parce que gouvernement bi waroon na ci waroon na ci waroon na ci duggal loxom ci touti parce que parce que du questionné dañ ñu xamul. parce que ñun majeure partie suñuy clients pratiquement c'est les autorités. Mhm. tantôt. duñu lim seen tur mais fii. ëmma fii lay jëndee xaj moom. ëmma seen waaw ëmma seen moom suñu xarit la quoi. ëmma seen suñu xarit la. Hmm. jox nañ ko am na benn mal canicors bu mu yor boo xam ne fii la jógee. tantôt ci autorités yi mën nañ ci wax ñu bare bare ñoo xam ne nii chien de garde yi nekk seen kër. Hmm. di leen defal gardiennage. Hmm. fii la jógee. xam nañ ne bu baax xam nañ bu baax activité bi ni muy demee. buñ dikkee fii tout le temps dañuy dañuy encourager et tout. mais ci loolu rek la ñuy yem. bon par contre bon

pour nga mën a am un euh, bon chien. d'accord loolu c'est c'est loolu c'est gentil Diagne ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax lan ngay tàggatoo. waa di leen jaajëfal rek di leen remercier di leen wax ne kontaan nañ trop ci ñëw bi parce que jotaay yu mel nii dafa am solo parce que xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nii euh, en matière de chiens de race dañ ko xaw a diaboliser. Mhm. te c'est très important. Mhm. tay ji bo demoon ci à la gendarmerie à la douane. Mhm. Euh, dañ la ci wax lo xam ni da nga xam ne c'est très important pour wax nit ñi rek sensibiliser leen. Mhm. pour ñu ñu bàyyi comme par exemple ko diaboliser. Mhm. te xam bon c'est des animaux yi nga xam ni nii nañ nek en famille mën nañ la defal gardiennage. mën nañ la and ak yow sax mën nga leen adresser ñuy dem di rëbb donc day lo xam ni lu am importance la. donc euh, di leen remercier ci ñëw bi di content trop bon di.